jërëjëf Miss Sahel Network TV kon di leen nuyu di leen gërëm nag di la won ne daal happy korite or nañoo jaama yal nañ ko fekkee déwén or nañoo jaama ñaan biñ ñaan si weeri koor gi yëpp yal nañu ko yàlla defaral te yal nañ ko fekkee déwén feebar bi nga xam ne mooy dis coronavirus covid 19 bii nii mu ngi nekk pandémie boo xam ne worldwide la spread mu ngi sonalee so ñu ngee ñaan si yàlla mu gën ñu koo saafaral fa feebar bi jógee yàlla jeexal ko fa aagaangut yal na bu ko fa yàlla aagal fi bariwut tamit yan na ko fa yàlla saafara mu jeexa jaama ñëpp dellu seen tànka utiwaat mun a jàppale njaboot si gàttal man maay Tunkoo Jammeh man la ñoo ooyee di ward councilor bi nekk Soldier Town ward judo Piñaay street fii number 27 magee fii yaroo fi nekk waa Banjul soppa Banjul buga Banjul jàngee fii tamit primary school jeexal fii suma secondary level ba dugg nag si yeneen a yeneen a yeneen jërëjëf thank you very much waaye Ablaye loolu laajte boobu important na trop si musique bi lañ ma xamee digga la woon et good promoter nekkoon sa artiste sax waaye after ma gis ne ñun ñëpp suñ nekkee artiste kenn nekku fi kuy pousse musique bi ma toon nekk MC et promoteur pour gis ne dinaa promote musique bi dunda Banjul ne dinañ ko mu a pousse mu dem ma nekk si musique bi yàlla def nag boobu tamit Banjul musique bi fii la njëkk lu bari street soo si di promote artiste yi si biir loolu yàlla def maay liggéeyal communauté bi tamit waale every nawet su amaan dama daan crier set setal awareness pour ñu jéem a seet ni ñoo set setalee gaspa yi pour flotte bi nga xam ne def dee soonal Soldier Town Ward because Soldier Town Ward mu ngi ne ward boo xam ne flotte bi fala dee laanee because Soldier Town dafa waaca moom moo Krabay lan woor waaye yeneen wooti si Banjul dafa iig so automatically saa yum nawetee def ñu dee jox flood difficulties si biir loolu li ma dee organise set setal di setal Banjul Samba Fall na ku baax la yàlla def moomu mu dégg suma xibaar oo ma invite ma pour employment at di council pour ma nekk koo xam ne senior supervisor di dimbale Banjul si wàllum garbage collection bi ma dem nag fekk fa ñaari collègue si ñoo ooyee nekk Tubaakuruun ak Pama Pa Cissé te nekk Haddington Street so ñaar ñooñu laa fa ñu xaaj Banjul into three di liggéeyal Banjul gis ne dinañ def garbage collection bi according noomal normal loondi ba aaral ba dinañ meg soo collect nañ Banjul yëpp seen garbage because twice a week lañ ko daan def so three days dañoo meg soo ne cover nañ all our environment because comme niñ ko xamee Banjul muy am 76 street yi nga xam ne is résidentiel nit yaa fa dëkka am na streets yoo xam ne they are here like Makati Square si streets la in Banjul but Makati Square surrounding bi kenn dëkku fa xanaa State House ak Battery Flat so soo fa jógee ñoomin am National Assembly Road kenn dëkku fa State House fi mu nekkee foofu tamit soo gisee boolewuñ ko si streets yi mu ngi nekk street boo xam ne amut résidentiel so during our collection lañ doon saama di compter kër yi fa nekka pour suñ stratégique yi mun a succeed noonu lañ defee nag compter ñaata kër moo nekkee boor bi ñaata kër na collection bi noonu la ñu easy nga xam ne ñuy doon succeed si job bi si biir loolu nag waxtu élection jot public bi gis ma gis ne maa ngi amoon seen idée di leen collegal gabeej at the same time lampa tamit su yaaxu woon dama si daan boole job as the supervisor wala ne street lights nangam taalut dama dee binda report joxe ko si council bi gars di si after loolu den election ñëw automatically gars ooma because yaaga nañ maa wax pour ma taxaw ma ne man mang si music bi di ko promote du ma mun a bàyyi bi dem so automatically si laa dem nag ma seet public bi public demand ñu ne ma duga dimbale leen gom nañ ne dinaa leen mun a

waxtu bi jot pour ma taxaw automatiquement mu nekk non oppose ñëpp ñëw ànda si ne non parce que Tunkoo mooy taxaw bàyyi leen ko kon mu taxaw du taxaw ak kenn mu nekk non oppose ma conteste succeed si boobu ba government bi change still nit yi ne dañ ma nii ma ñëwaat with another party waaye still success bi am ma nekkaat a ward councilor still ni daal dërëm bi génnut gaal. musique bi si promotion la bugga dara dem. politique bi tamit bugga dara dem la. waaye dinañu ruumal ak kii la na ko yóbbu xëy na xaalis a ko yóbbaale. sant yàlla bari doole. UDP jëluma fa benn xaalis. man suma motivation li ma dee jox always mooy ni dëkk bi di demee saka baañu. so automatically dama believe ne if there is a changes of government government step in man suma intention is. to see a development. ma Limadis, gis Gambia, most of the time, and most of the opposition parties, do they pare link up, delegate, and with the present government. So my belief ne, if I switch over, go an um, ñi nga xam ne coalition bi ñoom ñoo booka nguur bi because nguuri booka la coalition bi ñoo ko booka soo bokkee benn si coalition bi dema rek you will have the succeed bi nga xam ne yaa ngi so limo masi ma because the ngurbi fanekon the first republic of the second republic of the Gambia mo nguri jame bi nekon nafa be am a project of 20000 US dollar from the Arab International Bank bi ñoom ñoo ñu ko sponsor sponsor ko Gambia government through the vice president Aïssatou Ndiaye Seydi bi fa den nga gis na ñu jox ñu project yi pour cancelo si tamit set seen mun-mun sen gox te loolu yëpp si workshop yi ñu Athènes with Gumworks lañ ko téebul waxtaan ko fa ñu jox ñu projet bi 20000 US dollar equivalent to 710000 dollars ma liggéeyee ko gox gi that's 2014 ma liggéey lii man maa suma woon development committee ñu bid contract bi ñu am ki win affaire yi ñu jox ko ko mu contrat ko waye man suma bop ak suma World Development Committee ñun ño nekkon ñi nga xamni ño doon supervise job bi gis ne niñ bugg job bi démé la mo so mota pour liguey ak government tam because at least dañ la dé consider dañ dé mëna boka ci si waxtaan bi yow ya gaay si development dika bu dem right now this present government coalition dañ ñew ak send development plan and that development plan ñun ñu seen gannaaw gis ne dinañ leen boot gars yi succeed as a good Gambian I believe ne government bu toog war ngaa jóg nga liggéeya moom pour development plan bam xalaat nga succeed su demee keneen ñëw you still continue with your good job waaye maybe some dañoo nekk si dika ñoom duñ bugg a bokkaa government waaye dañoo sobote government te loolu def dee indi delayance nit ki bul ko soboté wax ko li def directly because soko ko yu tukan ut nga am aha. te waru waruta layal ken ku nek diga rek nga wara a gis yalla ta soy wax waxal diga bul wax lo xam di nga indi fitna si dëkka fitness fitna si fitness oo fitna fitness kër fitna office always da nga wara a wax loo xam dafa jub dafa digit xam nga ci lu uur man lii moo tax man ma soppa suma Banjul taxaw si gis ne dinaa taxaw si lu bari mu mun a dem lii moo ma dugal pour ma liggéey ak Governor lii rek moo ma ñor because man during suma time sax bi ma jeexal school in the early 80 li ma concentré moo li nga xam ne mooy yóbbu dëkka mooy construction dama si concentré 100 percent def naa ñoom aérodrome yëpp aircraft construction primary skill secondary skills I did my chemistry ma dem nekk an aerodroma at the airport waaye ñu bëri xamuñ ko si man si dëkk ne def naa a primary scale of aircraft construction and secondary scale in this aircraft construction so lii yëpp pour yóbbu dëkk la rek liggéeyal ñoom Amadou Samba yëpp biñ fi nekkee liggéeyal seen compagnie ñun ñoo liggéey soo demee Rankin si gannaaw pax bu mag bi ñun ñoo ko liggéey during time yi yaayaa bu ees bi la 1996 time boobu biiri moo nekk di interim mayor ñu liggéey rankin ba box ba yëpp maa ngi bokk si development process yi di Gambia so believe naa ne suñ continuer di dimbale government si procédure yi nekka dinañ succeed incha allahu ra mm-hmm. su ñëwee si terms in terms of dugal si poos moom ni kon nekk nañ millionnaire foog naa fii digga rek moo fee nootu stoo bi stoppuñ holtuñ dañ holt meeting siñ def si goxaan yi because of this COVID-19 government dafa restrict of this gathering and this COVID-19 bi mu ngi on mënuñoo am gathering waaye suñ page bi ñu ngee waxtaan te nootu stoo bi amuñ holt ndik soo bàyyee ñu ngi follow up ñi nga xam ne ñu ngi abandonoon like Kispiñaay dama fa stop on kena ko xam ne mu ngi doon pare sampa stop ñu stop si xeex bi lañ nekk ba léegi nit yi fa saani mbalit ñu gis ne dañ ko war a toppa mu sampa fa e resident because stop bi is abandoned daf ko war a resident mu ngi si kawam right now di fa def resident bi nekk fii Fitzgerald fii tamit same mu ngoog ñu ngi koo def resident pour mu nekk e residential area so nootu stop bi taawuñ si right now mu ngi am store bi nga xam ne mu ngi go on opposite the Hagan Church the Catholic Church bi nekk Hagan Street which is unfair with that church nga imagine church a ngi nii nga sampa a big store opposite church bi moto yi ñëw gaada during the church service naka la ñooñu di gisee ñu gis ne still nootu store bi dañoo jóg taxaw si lii ñu jóg demaat physical planning ñu ngi waxtaan a gaay te page yi dis notu store bi ñu ngi si invite ba invite taale si ñi nga xam ne ñu ngi nekka physical planning ñu liggéey a gaay ndik BCC si ngi si physical planning a ngi si ñi am doole fii pour stop store xam ne fii is a residential area warutal nekka store mooy physical planning seen collaboration with the Banjul City Council Banjul City Council mooy gis binda a letter seen ko physical planning ñu dem stop leen automatiquement ñung ko def ci benn manam like soko ko gisee yow di woot kansilo bi nga xam mu ngi nekk sa wot soko gisee ko report si yow rek da nga wara dem report si director of planning and development planning and development yow dang ko aso ne ko I am going with you to the physical planning ñu dem miti di physical planning waxtaan physical planning si li nga nyungko ne ñu ko in a residential area am na ku fas bugg a sampa a warehouse Then physical planning dina intercept Set ndax kooku noonu amoon na a certificate building certificate pour construct that building there because most of the time li dee xew they give them plans for a resident they turn the residential plan to a warehouse unbeknown to physical planning but automatically physical planning suñ ko xamee rek dañ dee won la ne ñu stop job bi because man several times I've did it with physical planning ñoom su ñëwee dañ dee gis ne this man amul right sampa wala fii mënut a nekk am store dañ ko dee stop so which mean di rôle boobu noonu des na si ñun council bi tamit suñ ko gisee niñ jógee def si taaw pour mu stop because local government act bi bi nga xam ne yaaga nañ koo amee yëpp ma ngi ko amee fii dañ ko yaaga amen waaye dañ la dee woon ne di local government act still mu ngi la woon ne council bi am na doole pour control street am council bi am na doole pour name street si council bi am na doole pour mbooloom kër nekk a dafa war a am nomba council gi am na doole pour woon la ne gox bii nii store waru fee am sooy am jënd kër kër gi before nga dem sampa fa anything dafa am li ñoo ooyee a transfer of name that transfer of name si council bi nga ko dee amee so that that transfer of name fa lañ war a investigate ne yaa ngi jëla kër place nangam xam nga ne foofu pour a residential area la because fu mu ne nii Banjul mu ngi ñëw nekk suñ feebar ku jënd kër daf ko dee store mbaa parewuloo koo sampa store fa waxtaan wala doone mu end physical plan li moy problème bi bor boobu moo tax no to stop dara munu ko stop te yalla dina ko move mu dem ñu ngee toppa yéen a jeego Hagan Street bi ma laa opposite bi foog ñu dem waxtaan Christiani. ñomi ñu bind e pétition ko tu physical planning ak BCC pour ñu jàppale len fofu bu mun a nekk store su nekkee store dina disturb choj bi torop so li moo tax resident résident si nga ñi ngi am difficulties look at Fitzgerald truck ci dañoo paak di ya hatali yu big truck si nii bir Dakar duñ fa daw dafa ya Yo yo am nga store ini residential area jëlal sa gele-gele taxi yu ndaw yi ni mu indi la bagage di delloo way so jëlé heavy truck nga forcé ko si residential area Bena mudano, mu daanu bena mu dok waya yi street waya difficulties things want to have dafa bari top. so please then Google Google nit yi understand me. residential area is not for store area you lii kind of phone of this thing is nandu nandu at this Omar bari ñoom sampa store si in residential area Degala ya am sahalis nga jinda kirgi. gi amulo amuloo right pour sampa fa store bi jinda it was a resident Munulo jinda a residential place nga toon into a warehouse You need a warehouse. There is a place whereby you can build your warehouse there. Mom la la wax ne la bi ma stopé store bi ni man ma suma ku kancilo bi ko man ma assist daba ñoo njëkk ñu ñu stop store bi waaye bi ñëwee ñu hin physical planning bi nyu ñu won len ne dafa wara stop waa ji dëgër boppa di jeekali fekk dafa am a letter bi mu from the council mu ngi si administration manager bi won time boobu nonu administration bi fa nekka nekku fa won bi fa right now nekku fa won kene na fa nekkoon ñoo ko approval binda ko leeta won ko ne ko mu kaare on bama ma ñëwee ma gis bi ma dellu physical planning physical planning ñoo ma jox leeta bi dama this letter is from your council ñu wane ki mu jekkali joom ma won leen and you people know ne kii amul right pour stampa store so dañ ko stop ma jël leeta bi dem adresse admin bi fa nekk ma won ko ne moom ban ride la am store bi nga xam ne ñu ngi ko stop moom mu jox kooku pour mu kaaree automatically dafa withdraw leeta ribindaal leeta bi ne it was not rek the councillor that area was not aware of the building of the letter bi moo indi letter bi so automatically ko aware den ñu withdraw bosam bi si lañ ko stop léegi yàlla may ñu si jaama mu nekk résident so always li ñoo wax mooy follow up more important soo tayalee si liggéey bi nga nekk rek doo mun a succeed liggéey boo gis sawar la ni liggéey maçon métti na si liñ fop baara ñi ni gën koo métti waaye baara ñi ni bi dafa enu te enu la moo defi ji dafa ewu njël suba teel mu daw dem ataaji liggéeyukaay ndig fa la moo amee so yow fi nga amee deng si war a sawar sooy nelaw ñu ela sa jugal nga dem fekki sa liggéey bi ndik fa ngaa dundi man as a e ward councillor lo ma report call ma wax ma ko dama koo dox ragaluma si tiituma si because I took an oath What ne dina defend di call am di local government a te dama ko defend gis ne without fear or fear suñ la duko sa nga jël sa duko bi nga lekka sa affaire la yamo man sa suñ ma duggee man suma affaire la suma way job bobu man dama meg so du dem li nga duko mënul la dimbalé mënul la constrogal pa ki su la duggee benn hundred thousand or more than lulu mu sampa fi warehouse tali bi government spend more than millions within six months dafa yaaw so yo mi jël duko bi be ki def liggéey bi yow da nga am a moo tax Banjul fii ñun li ñu ñor mooy council bi dañ war di am dialogue always soo déggee ñu ne Banjul City Council mooy councilors and the mayor with the CEO ñuy toog di dialogue the CEO represent the staffs of the council and day to day yi bi ni moo demee then councilors and mayor bi ñooy nekk di senior supervisors yi gis ne lu nekk dina dox si yoon like for example mun nga asoogaay wane ne every department in that council war naa binda e weekly report pour nga xam département bu nekk ni moo doxee fuñ ñu amee problème fu ñu amee fol fu ñu amee difficulties yëpp fii nga ko dee saafara yi moo tax ñuy dee teg e manager foofu oo ñu tegal la e directeur foofu noonu pour ngaay ñoo jox report naka ngaa liggéeyee nda am nga teexa teexa problème yee yooyu noonu like fu mu ne nii tey cleansing service teexa teexa yi am is too much challenges yi am it too is too much and there is council committees yi nga xam ne sub committees yi njee taxaw at council level ñi nga xam ne ñooy saama everything la council def dee am sub committees one da am Finance Committee. The chairman will be a councillor. It will be head by a councillor with his team, maybe three or four teams, including the CEO, mayor, deputy mayor, deputy CEO, and most of the directors who work there. So they may see I'm the culture committee, the far I'm a chairman, a team. nga dem am development committee da development committee def dee am ciyaamaanam loolu moo dee waral da development committee ciyaamaan moo dee responsible yéena yu bëri development bii daw witin Banjul ak si council loolu suy am dañ ko war di discourse at that place ñu indi ko general council ñu puus ko establishment tamit mu fa loolu moo responsible pour problème ak di discipline liggéeykat yi any kat bi folti o am e problem. o nga buga employ si ñooñu nga amit ñu discuss ko at council level ba pare sen ko tu general council general council pour ko into record ñu continue proceed so bobo le ne di establishment committee nga dem nga amati yenen yenen yenen committee committee yooyu ñoo laa dimbale si mboolam liggéey buy dox tey clean seen service su amee difficulties development and planning committee mu ngi am council man boo naa si committee boobu waaye géej nañoo meeting moo daan eight months. ne dialogue bii nii yëpp di CEO we have an CEO whereby CEO bi dafa war di jox di kansul clerk advice always that council clerk moo dee responsible pour am am am ñuy organise waaye that clerk to council dafa war a amee tamit direction bi from the mayor pour mu gis ne mitin dafa war a continuer di am waaye dangaa gis ne council bi nga xam ne doo dee am meeting continuously doo dee am dialogue with your councillors automatically difficulties dafa am in that council because li nga liggéey yow mayor bi rek mënuloo koo liggéey moo tax ñu ne la di city council is governed by a mayor and his councillors or her councillors including CEO bi nga xam ne dafa joxe doole si day to day service of the country because moo tax liggéeyi yu bari dañ ko dee gis foog ne bale pax la ak yooyu loolu soo tayal looyee sa councillor si la dee dem engage ci yooyu but every council daf dee am drainage team house to house uh, garbage collection team ñooñu ñoo dee they a liggéey liggéey yooyu di gas The yi di collect garbage di dem street cleaners am so automatically sa street cleaners yi su sa supervisor si muufut liggéey bi dem Banjul moo waral tilimbu bu bari bi the supervisors are not giving out true reports to their directors the directors are not going out to the street to see what is good and what is bad. The directors are not meeting councillors for the councillors to discuss their constraints with the officers. The mayor before NECA always do they bugadi am dialogue continuously with their councillors. Why? Why? Like this mayor right now. Why? Why? Because of Monekasi office bi. Manglajo an example. Every council dafa war di am e representative from the ministry. of local government ki nga xam ne every month dinañ xam ne general council meeting is going on that minister's representative moo dee jël minutes yi di ko yóbbu si ministry gaay di xam di going and coming of the general council meetings di constraint ñi nga xam ne people yaa ngi koo am difficulty si waa dëkk bi di am yëpp fa lañ koo gisee ko why automatically so dialogue with your councillors you don't dialogue with the community automatically more last to these difficulties you have